ginnaaw ba mu tegee xeeru université Cheikh Ahmadou Bamba université boobu ñu war caa dugal ci ay kopparu toll ci 37 milliards jamono ji nag mébétub Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général des mourides moom mooy fexe ba tekk xeeru zone industrielle bi nga xam ne nii war naa toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn hectare war a indi ay njëriñ yu takkoo takku ci biir dëkk bu sell bi ci Touba Mountakha Kane mi nga xam ne promoteur immobilier la waaye itam ci loxol nday joorul Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ci indi ay leeral Serigne Mountakha dafa bi mu fi toogee ñaar moo doon moo di d'abord l'éducation de la population de Touba mooy les écoles les universités waaye nag dafa am loo xam ne daf ko xalaat mooy waa dëkk bi am am xëy ndaxte Touba bu ñu seetloo yàlla mbala am xëy amu fi euh, loolu xalaat bu mel noonu rek moo taxoon moom may jox ñu ndigal man ak sëñ aas ak ñi ko bokk ñu góor góorgóorlu ci loo xam ni xalaat yàgg na fi am ñu def ci pëstéef ba taxawal zone industrielle bi. dëkk bu sell bi ci Touba ñàkkoon loolu ay jumtukaay ci lu jëm ci wàllum industrie waaye itam ay bërëbu xëyukaay yoo xam ne nii ndaw ñi ak soxna yi daañu fa mën daan seen doole jamono ji nag li nga xam ne moom moo di mébétub xalif bi mooy fexe ba képp koo xam ne amoo am xëy ci dëkk bu sell bi ci Touba nga daal di koy mën a am waaye tam yu bari yoo xam ne dañu ko daan jëggaane ci wàllum industrie ca diwaan bu Ndakaaru lépp daal di mën a am ci dëkk bu sell bi ci Touba bu ko defee usine yu ndaw ndawaan yi nekk ci biir dëkk bi yëpp ñu mën a génn ñëpp installé wu ci biir zone industrielle bi donc loolu moo doon objectif wu yéene sëriñ bi mooy yéene aussi euh, taalibe yi mooy yéene aussi euh, association des commerçants de Touba. mën a permettre chômage bi wàññeeku Touba dana permettre aussi commerçant Touba yi nga xam ne ñoo fi nekk la ñuy dédouaner port de Dakar ñu mën di dédouaner fii dana permettre aussi industrie yi nga xam dañu nekk ci bitim réew. muy Dubaï muy Paris muy fu nekk ñu mën a ñëw installé zone industrielle bi waaw actuellement nous avons 146 hectares bi projet nag ki nga xam moo di promoteur bi Mountakha Kane di fësal ne li nga xam ne moo di zone industrielle bi ab zone industrielle bi spéciale na xam ne moom moo di ab douane waaye itam ab gendarmerie li nga xam ne moom la laaj ci ay hectares fas yéene nañu ko a am kon moo di xeeru zone industrielle boobule ñu fas yéene dëgmal li nga xam ne moo jëm ci wàllum liggéey ci ab fàttali zone industrielle boobu ñu ko fas yéene ci fi nga xam ne moom moo di ci autoroute Ila bi ca ñuy wax wax bayti foofee jamono ji daal di bokk ci dëkk bu sell bi ci Touba ngir zone industrielle bu dëkk bilee foofa la ñu ko fas yéene amalee